mbokk internetu suñu People TV euh, ñu leen di nuyu bu baax euh, ñu dellu siwaat fii si marché HLM bi pour andil leen. dellu siwaat pour andil leen lépp loo xamante ne soxal na wàccaayu tabaski bi keroog ñëwoon nañ si marché bi andil leen lépp lu jëlee ci tissu dàll et autres tey ñu dellu siwaat tey ji ñëwaat marché HLM fii seet si ku ñuy wax may Makeup bu yëngatu si wàllu greffage lépp loo xamante ne daal wàllu sañse la si jigéen ci wàllum tabaski bi xaar leen ñu ndax dinañ leen ko andil maaleykum. maaleykum salaam wa bi ziar naa la. waaw delloo naa la ziar. Modou Makeup. Modou Makeup marché HLM 5 waaw prince de la beauté maa ngi nii de. ah Modou Makeup ngay king ci wàllu li ngay yëngatu ci wàllum greffage. waaw. ma bëggoon nga leeralal mu si tuuti. waaw Modou Makeup marché HLM 5 waaw buñ koy wax moom ah, lépp lépp la ëmb quoi lépp loo xam te ne daa aju ci wàllum beauté rek dañ siy yëngu quoi. Euh, tel que greffage tel que lépp ñu di ciy yëngu bu baax a baax Modou Makeup marché Asalam 5 waaw. Modou Makeup ñu bëgg xam wàllum greffage naka naka naka lay ak jigéen ñi. ah yomb na yombul quoi yomb na yombul mais jigéen ñi moom xam nga rek da ngay def euh, da def euh, da ngay fexe ba def mille sens pour satisfaire leen rek ci ci côté yëpp franchement te ñu ngi koy ñu ngi koy jim quoi ba ba léegi ñu ngi koy tante mais ñu ngi koy réussir quoi chaque chaque événement ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy tante te ñu ngi koy réussir macha allah. kon moo la déggee ci waxin yi ñu ngi génn ci wàllu clientèle. waaw waaw ñu ngi génn bu baax a baax a baax parce que ñun peuple bi ñoo ñu choisir. waaw ñun ñooy ñun ñooy vendeur du peuple kon peuple bi ñooy choisir kon c'est normal quoi. c'est normal ñu ngi ciy génn bu baax a baax macha allah ñu ci sant yàlla bu baax a baax. kon crise bi ñuy wax ci jamono jii waaw ñun moom ah, franchement mën nañu wax ne alhamdulilah parce que ñun. si crise bi lañ lañ débuté lépp si crise bi lañ ko commencé te crise bi lañ réussir tamit sant yàlla bu baax a baax kon mën nañu wax ne crise bi franchement buñ koy wax ñun daal ñu ngi sant yàlla daal franchement waaw di wax ne yàlla na yàlla na yàgg Sénégal daal waaw franchement waaw. Euh, Modou Mbaye Kër bëgg naa xam dañuy jaay euh, dañuy jaay indien hair dañuy jaay raw hair dañuy euh, dañuy jaay bunchi. waaw euh, greffage yi nga xam ne ñoo nekk en tendance yëpp daal ñu ngi koy jaay vraiment franchement waaw ñu ngi koy jaay franchement parce que greffage yi nga gis ni yëpp ñu exposé ay tendance lañ bi mooy kinki curl bi yi ñooy romance yi ñu voilà franchement yëpp ay tendance la quoi Modou Makeup marché HLM 5 boo gisee peuple bi niñ taxawee nii nga xam ne euh, Modou Makeup daal moom la peuple bi choisir daal franchement waaw non prix bi moom dafa abordable franchement man avec Modou Makeup moom lu waay am am da ngay am cheveux quoi. waaw dañ dañ leen réduire prix yëpp tax defar leen ko ay affiche waaw lu waay indi boo ñëwee ñu jaay la greffage lu waay andi rek boo ñëwee ñu jaay la greffage franchement waaw xam nga ne l' interview bi n'était pas programmé te gis ngeen waaw gis ngeen peuple bi ngeen xam ngeen waaw comme li ñuy wax chaque jour loolu moo am fii quoi waaw. waaw kay merci beaucoup ah, ñoo gën a kontaan waaw ñoo gën a kontaan parce que tamit yombul quoi ngeen def seen déplacement dérangement rien que pour ñun quoi. kon euh, ñi ngi wax ne di gërëm seen chaine bi di wax ne mu bokk ci chaîne yi nga xam si ne yëpp yi ñuy gën a suivi ci àdduna bi ngeen bokk ci franchement waaw ndax ne kontaan nañ trop trop ci déplacement bi parce que ndawul quoi waaw parce que ñun. ndawul si ñun franchement seen déplacement ndawul si ñun xeebu ñu ko aussi waaw di leen encouragé rek di leen wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu la quoi waaw. maa ngi delloo ziar bu baax a baax. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. ñu ñëw man maay Rohi. Gambie laa jóge Gambien laa parce que Modou li ñu xamante mooy lu baax lu am qualité lay jaay. loolu lañ xamante turu la parce que ma amoon saloon ñu yàlla di dox dogal di dogal ba Gàmbi ku bëgg lu baax ma ne kon na ñëw ci Modou Makeup far nag ma ñëw ndegem lu baax la may jaay te représente naa ko fi lu baax di best quality things loo xam ne moom moo koy jaay moo tax fu mu nekk nii mun naa ne maa fi nekkal Gambien si yeah kon daanaka daal mooy bu ma la déggee ci waxin yow gis nga say sa bopp ci li muy jaay. gis naa suma bopp ci lu muy jaay te samay xarit samay àndandoo rek gis naa leen ci lu muy jaay parce que fu mu nekk nii depuis promo bi bu mu commencé ku woo Modou jotu ko man lay woo ne ma lii laa bëgg ku demoon nag di nga ñëwaat. ku demoon nag dinga nga ñëwaat macha allah. daal may assuré qualité bi ak prix bi. qualité moo doo ci gën best quality hair parce que dañ la jaay jox la garantie. waaw dañ lay jaay jox la garantie jox la everything so ku képp ku demoon rek di nga ñëwaat. waaw. thank you so much jërëjëf waay merci beaucoup. off lang. kon yow bu ma gisee daanaka yéen ñëpp da ngeen fi nekkandoo di ko jàppale est-ce que yéen a ngi ci par rapport ak clientèle des fois réseau bi wàcc sonn dafa obligé xëyaat dix heures ñu ñëwaat nekk ci client yi ñu nekk client yi la rek parce que client yi ku ñu amul jàmm rek di ku ñu amul qualité rek di gàtt bi leen di jaayal marchandise bu baax kër leen gaaw borom table yi mbaa amul leen ci yenn jafe-jafe yi ak yenn phénomène yu ñuy gis ci jënd ak jaay. waaw ñu ngi des fois a jaay nit ñi ñu yóbbu la ba si yàlla retiré waat xam nga jaay nit bu defaale beneen transaction retiré waat wala nga jaay nit mu ñëw ne la ma jaay neex changé na ko da ngay fekk dafa utilisé ba pare bu doo suñu dara da ngay mën ko utilisé da ngay lu bëgg rek parce que client bi la parce que client bi la te client bi rek lañ fi nekk waaw client bi rek lañ fi nekk buñ seen moom bu leen neex rek lañu def su ñu leen neex rek moom bu fay jëm bu fay jëm

naka ngeen di dundee wàccaayu tabaski bi. yii métti na torop metti na torop torop torop fu mu ne nii ñun bi ñu korité ba léegi sama tailleur dañuy fanaan dañoo sonn waaw macha allah. dañoo sonn euh, soxna si. Mm. Mm-hmm. Euh, naka ngeen dundee clientèle bi. ci ah. bi ñuy wax waxu crise bi. waaw loolu dafa am. mais euh, ñun suñ suñu clientèle jógewuñu fii. Mm-hmm. waaw dañuy jël yeneen réew ñu ñëw fii ñun ñooñ la ñuy ñawal daal mais Sénégal moom euh, fii sénégalais yi ñoo pour ñawul bariwul. Mhm. waa dëkk bi dafa metti si ñoom. Mhm. waaw ñoom moom sama client yi mënoo gis yëpp ñu nekk Sénégal ñoom ñëwuñu bii pax. Mhm. waaw étranger yi rek ñoo fi ñëw étranger yi rek ñoo fi ñëw pour liggéey si. ñoo xamante ne dañoo yore seen i magasin ñu ñëw ñu leen ñawal ñu koy yóbbu pour jaayi seen réew. kon daanaka yow bu ma bu ma déggee ci say wax. Mhm. crise bi ñuy wax kon laal na leen. Eh, laal na bu baax. ñuy no ñawa ñuy ñuy toog fii. Mhm. di ñawalu sénégalaises yi moom. ak sénégalais yi bi laal na leen torop. torop torop torop am na ñu nekk eh, amuñu liggéey ko amul gan moom étranger. buy ñëw pour liggéey si yow doo liggéey dara. Mhm. waaw Sénégal metti na torop. torop ah yëngi-yëngi xanaa fit fit yi dem rek parce que da ngay dem sa kër sax yaa ngi ragal naka tey jii nii du ñoo daggi sa magasin waaw parce que yaa ngi ragal marché HLM tout le temps ñun si menace lañ nekki dañuy ragal eh, eh, crise bi daal métti na torop torop torop sax. jamono ji engendre na insécurité aussi. mais bien sûr bien sûr bien sûr. ñu ngi daj magasin jàmbur ñu ngi lakk nit ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi tiire bal nit ñi vraiment euh, métti na trop. bu ñu weesoo loolu. Euh, naka ngeen def ak commande yi maa yéen a génn. ñu ngi ciy génn ñu ngi ciy comme ay gan lañu. Mhm. mais ñi ñëw noonu ñi nekk jóge à l'étranger. ñoom moom dinañ si génnee si ñoom waaye waa Sénégal moom gisuñu leen. waaw waa Sénégal moom gisuñu leen fi. kon bu ma la déggee ci waxin daal yéen a ngi ci biir daal yéen a ngi ci biir bañu tabaski bi. ah waaw ngi ci bañu tabaski bi moom macha allah. Mhm. soxna si. waa kay Mariama Bangoura madame Baye. madame mhm. moom mi ngi moom groupe la ñu ngi ci ginnaaw ñoom yëpp maa ngi leen remercier parce que bi affaire bi duggee. affaire bi métti na torop torop torop waaye ñu ngi si jàpp ñu ngi fanaan xam nga eh, seetaanuñu ma daal seetaanuñu ma sama tailleur bi sama doom bu góor bi Pape Ndaw mi ngi nii gis nga fu ma nekk mi ngi sama wet waaw fu ma mënti nekk rek mi sama wet waaw dama koy yee heure bu client heure bu mu soxla moom dama koy woo téléphone même xaaju guddi su ma ko wooyee jógal nga defar fanaan day jóg ñëw fanaan defar ko wax dëgg yàlla merci beaucoup. maa ngi leen di ziar di waaw ñu ngi ci jàmm sant yàlla bu baax. waaw tabaski moom ñu ngi koy dundee comme tabaski yi paase rek mais tabaski ren bi moom moo ci gën a métti. ndax dèjà li jot a xew bett nañu tardé na suñu liggéey toog nañ pendant cinq jours yoo xam ne liggéeyuñu manifestation yi bari na et moom mu nekk ci ay problème ñun tamit ñu nekk ci ay problème ndax moom dèjà bu amee liggéey bi te gisul ñu ko mën a liggéey et puis maa ngi saa yi nga xam ne dañoo waroon a ubbi pour ñu dem jënd garniture yi dañuy tëj dèjà loolu problème la pénaliser nañu ci lu bëree bari liggéey bi doxul na mu war a doxee et puis daal ngi noonu daal ñun daal sonn nañ trop soxna si boo bëggee dégg-dégg. affaire bi métti na torop tamit nag na torop. waaw fii moom ku fi ñëw incha allahu rabbi cent pour cent ngay am ci satisfaction ndax ñoom xam nañ liggéey bi dèjà xam nañ nuñ koy defee te ñoom yàgg nañ leen liggéeyal bu ñu ñëwee fii moom bu soobee yàlla képp ku fi ñëw rek bu soobee yàlla di nga am xel mu daal daal ndax ñoom ñu fi ñëw sax dèjà ñu ci bari dañuy toog foofu yónnee pour ñu liggéeyal leen envoyé leen. ndax loolu rek dèjà xam nga boo amul satisfaction doo mën a def loolu waaw noonu la demee nag. merci beaucoup Pape. merci yu ma ci dool daal mooy daal ñun daal président Macky Sall la ñuy woo mu dimbale ñu ci affaire yi fi xew ñun ñu mën a liggéey ndax moom mooy kilifa ak dëkk bi dèjà Ousmane Sonko moom yorul dara yorul benn responsabilité président bi moo yor responsabilité bi yëpp lépp ci kawam la tegee comme maire bi ni mu nekk suñu présidente fii. gérer lépp tey ji bu ko neexoon ñun ñëpp ñu jóge fi mais yërmande gi mu am ci ñun ba ñu mën a toog di liggéey ak moom le président am yërmande boobu ci ndaw ñi quoi pour lépp apaisement am ñu nekk ci jàmm la vie continue. ok beaucoup. waaleykum salaam wa rahmatulah. bien. sa liggéey ah, ok en fait ñun nag dañuy perle dañuy bàyyi tailleur yi ñëw suñu ñëwee ba pare ñun dañuy jël perle de estrage mais estrage bi mun na nekk deux tons en plus tamit mun na nekk benn ton daal sans dépend ci lu ñuy daamine et tout en tout cas daal lépp ñu ngi koy def mu fokk. <laughs> ay embauché ngeen d' accord euh, en fait ñun nag ay employé leen fii dañuy liggéey fii nii ñu ñuy fay. voilà mais lu ñu yor maire bi moo ko kii. Ah, mbaa pas tellement. Mm-hmm. ci euh, benn jour. journée bi mën nañ perle ay yére yu bari ci benn jour. Mm-hmm. kon bu ma la déggee ci waxin yéen programme ci biir. ñoo ngi si biir moom macha allah instant yi moom perle bi dafa gën a yokku liggéey bi tamit macha te journée bi mën leen perle lu bari ci biir ci journée bi ça dépend rek. kontaan naa la lu bari. fay naa la. ngi ñu ngi sant yàlla bu baax. naka la Jeanne laa tudd. Jeanne. Jeanne ñu ñëw fii fekk ci négoce d'or bu HLM. Mhm. Euh, Jeanne mën nga ñu expliquer tuuti négoce ci lan lay yëngu. Euh, négoce d'or mu ngi yëngu euh, si jaay or bijou en or tout genre de bijou la ñuy jaay 18 carats 21 carats ba 24 carats 22 carats dañ koy jaay. Jeanne ma bëggoon naa xam naka ngeen dundee wàccaayu tabaski bi. waaw ñu ngi nii client yaa ngi ñëw nànk-nànk am nañu ay arrivage yu bees fii moom négoce d'or la chaque jour rek lu bees la ñuy génnee ak ay marque toujours mooy différence bu ñuy def ak yeneen euh, bijouterie yi lépp lu ñu am rek ay arrivage yu bees lay nekk ci tabaski bi. Mhm. naka bon métti na tout ah clients yi dañuy kaas mais bon on fait avec on fait avec parce que ñun clients yi lañ fi nekkal. clients yi lañ fi nekkal waaw. mbaa crise bi deful impact ci seen clientèle. waa crise bi moom ñëpp la laal bàyyiwul kenn mais ñu ngi sant yàlla euh, ñu ngi adapté wu ak euh, la clientèle parce que ñoom ñun lu clients yi bëgg rek moom la ñuy def on s'adapte ak euh, les nécessités des clients on s'adapte daal. Jeanne ma bëggoon xam par rapport ak li nga naan yéen a ngi ak clientèle bi. Mhm. waa bien sûr am na impact si pris yi tamit mais loo gis rek euh, waxtaan la parce que négoce moom comme ni ma la ko waxee clients yi la fi nekkal donc dañuy xool loo xam ne moo neex clients yi ak lu clients yi bëgg ñu defal leen ko parce que loolu mooy suñu slogan clients yi lañ fi nekkal parce que moo ñu fi tax a toog kon c'est c'est à portée de prix. c'est à portée de prix. Mhm. partout la clientèle partout la clientèle fii boo fi ñëwee rek boo gisee loo bëgg rek di nga ko am incha allah. macha allah Jacques. di leen wax rek euh, tabaski bi négoce d'or a ngi nii ñëw leen fii arrivage yu bees tàkk ay bijoux yu bees tàkk yu amul fenn négoce d'or rek ngeen koy amee. macha allah merci beaucoup. je vous en prie. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi naka nga def. sant alhamdulilah. tur bi naka la. Khadim Ndiaye. bi tey. Mhm. Euh, mën nga ñëw adresse bi. Euh, négoce d'or la. Euh, numéro téléphone bi mooy numéro Fallou waaw am nañ plaque yoo xam ne comme or boo ko tegee kenn du la xamal dara mooy comme genre yi nii 18 carats lañ teg si kaw mooy plaque en or yi ndaanaan yu bari moom lañuy sànce nga gis ko nga jàpp ni or la fekk plaque yi ñu teg or si kawam la moo nekk nii et cetera am na yoo xam ne ay tëgg indien la ñoo nekkee ne yooyu tëgg ngalam yi moom la gars yi di takk ñu si bari te ñu siy jaay bu baax a baax waaw di wax ku bëgg rek na ñëw ñu jaay la incha allah. ciy jaay bu baax a baax. xam ne waaw marché bi instant yi ku xam ne dëkk bi amul xaalis mais client yi ñu bëgg lu baax ñu ngi ñëw di jënd si. yenn saa am ñoo xam ne suñu client fidèle yi ñu ngi ñëw di ñëw jënd si yenn saa ñoo xam ne dañuy ñëw waxaale génn dem mais dëkk bi moo ko laaj ndax parce que ak li fi jot a xew ak yooyu noonu moo tax mais macha allah ñu ngi jaay. waaw ñu ngi jaay ñoom ñoo jaay. noo jaay waaw mais ñu ngi jaay incha même pas façon prix boo bëgg am na fi. ça dépend sa poche soo bëggee lu moins cher am na fi soo bëggee lu cher am nafi ñun boo ñëwee dina la propose dina la lii lañ am sa budget fu mu toll dina la jaay incha allah waaw. ok merci beaucoup. waaw di leen wax ni ku bëgg bijou bu rafet bu garanti rek mu nga ñëw négoce d'or adresse 9 numéro téléphone 950 57 56 mooy or bi bu fekkee plaqué 274 96 15 ku bëgg plaqué rek bu rafet bu garanti mu nga ñëw fii incha allah boo ñëwee ñu jaar di nga kontaan. ok merci beaucoup jaajëf. mbokku internetu suñu People TV sànq ñu demaloon leen HLM ci borom greffage bu ñuy wax euh, Modou Makeup ba ñu jógee ci moom jaar nañ ci négoce d'or bu bu laxaat ñu fas yéene ñëwaat encore ci champ de course ñëw xool si fi encore tailleur euh, euh, yi ak euh, ñi defar dàllu góor yi mooy jaaykat yi ñu jëlee marché Sandaga salaamaaleykum sëñ bi ziar nañ la. ziar nañ la baax soxna laa tudd. Soxna. Matar Soxna waaw. ñu ñëw fii fekk champ de course. ñu ñëw gis ne yaa ngi defa yaa ngi yëngu ci wàllu daalu góor. Mhm. ma bëggoon na xam seen ñëwin fii. Mhm. Euh, naka ngeen ko dundee jafe na wala jafewul. waaw man nag euh, Médina laa nekkoon quoi mais fii comme waa Sandaga lañ fenn fii lañ leen recasé mais après man dama fi ñëw comme locataire quoi. mais vraiment depuis boobu ba de xam naa bu ñu doon def promo marché bi waaw mu gën a may publicité nit ñi gën ko kii mu gën a yaatu daal dina intéressant trop loolu xaw na manqué quoi. waaw te soxla nañ ko trop vraiment. sëñ bi ma ma bëggoon na xam gis naa yaa ngi defar ay dàllu góor. Mhm. ma bëggoon xam ndax jaay bi gaaw na wala gaawul. ma gaa jaay bi moom man nag sur commande rek laa liggéey. sur commande waaw man sur commande rek laa liggéey quoi liggéey mais vraiment yàlla def fi dañ fi am benn GIE ma jiite ko mhm. ma jiite GIE euh, bu coordonneur yi. man maa président quoi. Mhm. bu champ mais vraiment. xam naa ne njarte daal des na bu baax a baax parce que vraiment dañoo am ay concurrents yoo xam ne dañu ëpp doole trop muy turquie muy chinois yi parce que bu njëkk chinois yi lañ doon wax léegi turquie dañuy implanté marocains yi ñëw et tout waaw te àdduna nag dafa ubbeeku noo xam ne nii gëm naa ne mënatoo wax nit ki fi nga yem mais vraiment war nga am sañ-sañu état moom soxla wuñ pour mu wutal ñu liggéey mais dañ ko soxla pour mu organiser ñu métier bi organisation mooy lan maanaam booy dugal daal ci dëkk bi nan ko war a dugalee mais loolu il faut nga ñëw ba ci man parce que ku jege njaw rek xam njaw quoi comme boo ñëwee ba ci man laaj ma ma xam nan laa amee sama produit nan laay liggéeyee léegi yow di xam importation bi nan ko mën a rangé ba mu ñëwee du ma gaañ mooy organisation bu nga xam état moom la def loolu dañ ko manqué amuñu ko vraiment amuñu ko quoi moo ñu gën a sonal trop waaw. yow kon daanaka bu ma la déggee ci wax amuñu ko amuñu ko la wax. amuñu ko ba pare vraiment état dafay am ay idées yoo xam ne bu ko ak ay projets yoo xam ne da nga ci mën a gis sa bopp macha allah mais da dem ba ci biir lu ëpp daal da ngay mujj parce que boo xoolee ñu ngi wax problème emploi mais man dama gis benn projet boo xam ne ci emploi dara ëpp ko doole mais vraiment ñun ñi nga xam xam ne ñoo ko seqoon dañu dem ba am njàqare parce que muy projet pour mettre empreinte yi parce que projet bi commencement bi li ñu ci doon dégg après li muy am ci mujjantal bi da ngay mujj sax tiit parce que projet bi dañu benn mètre bu ne nañ la jox un million franc équipement mais vraiment boo xoolee ba ci biir da ngay xaw a jaaxle presque mën na trois ans ñu ngi ciy daw def ci ay formation pare doo xam daal vraiment te yu mel noonu dafa amoon njariñ parce que dañu la mètre bu ne maximum di am trois empreintes léegi xoolal maximum loolu dafay nekk presque ñetti junni eh, eh, emprunté yoo xamante ni waroon nañ mën a ñëw dugg ci emplois bi am fu ñuy xëy ba tey bu fekkee yàq am na wala leneen wala lu xale yi mën a foowee ëllëg duñ ko def parce que ñu ngi seen place toog mais loolu lépp ay liggéey yu am solo ay projet yu am solo la mais dafay yeex ba pare am euh, day tardé noo xam ne ñun sax dañu am njàq rek ko lan moo xew vraiment dañ découragé ci vraiment dañuy toog di ci waxtaan mais ñëpp a ci projet boobu parce que nag ñu ngi ñuy wax dans deux mois di ngeen jël seen équipement et mais vraiment gëmoon nañ ne def li war def lépp fi ne da toog ba mu yàgg duñu xam ba léegi nii jotuñu équipement waaw te projet boo xam ne presque loo xam ne vingt cinq milliards du ay fo du ay fo commencement bi déggoon nañ ci suñuy emprunté dinañ am ay per yoo xam ne nañ leen jox ay weccet daanaka lu ñu commencé la te àggul. non ñu ngi ci ñu ngi ci parce que nee na ñu ngi ciy avancé ba maa ngi dégg ay vidéo yoo xamante ni ak ñu ngi koy envoyé ci groupe WhatsApp yi ne dans deux mois dinañ mën a jot bagage yi mais projet boobu mën nañ ko organiser xam ne ci biir un bi di génn formation yëpp mën ci nekk. waaw parce que formation bu ñu mënul passer six jours wala une semaine te dañuy concentré te suñu ay place dem di ko def kon ñun bëgg nañ ko mais nañu ko gën a bëggale bu ko defee ndaw ñu am fuñ xëy dina am léegi ma bëggoon a xam euh, naka ngeen dundee wàccaayu tabaski bi ngeen confirmé fii. waaw métti na métti na. waaw métti na parce que vraiment boo xoolee ren moom xaalis amut parce que yëngu-yëngu yi bu amee boo xoolee Burkina euh, bur lu mel ni Burkina lu mel ni Mali lu mel ni Côte d'Ivoire ay Togo dañ doon ñëw di mais sérieusement parlé mënoo dégg dëkk boo xam ne amul benn stabilité bi nga dem di fa yóbbu sa c'est pas sûr mën nga dugg après am fa problème du ko jar sa a baax parce que xoolee ñun lu ëpp lu ñu moo ñi nga xam ne parce que boo xoolee ñun dëkk bi pour nga jaay fi léegi yombatul ñooñu rek lañ yaakaar mais vraiment ren ñëwuñu ñëwuñu ba vraiment am na kuréel ñuy bari vraiment yëg nañ ko daal yëg nañ ko bu baax a baax a baax waaw loolu nag buñ ci mënoon am dimbali dina am solo. bu ma la déggee ci wax yéen seen clientèle ñi nekk hors Sénégal mu ci ëpp. non ñun léegi pourquoi pas sénégalais yi tam. Mhm. poussé leen ci consommation locale bi aussi. non complexe la. complexe la sénégalais moom dafa am jikko boo xam ne bu ko dindilu ci boppam ba pare kenn du ko mën a gaaw a lijjanti xam naa mooy complexe ba euh, l' autre jour maa ngi am sama benn euh, tonton bu indi ay bagage dafa ma woo téléphone ne ma bagage dama koy jaay xam nga mais dama xam jikko sénégalais ba dama ne ko boo ko bëggee jaay tàlla sa oto ñëw gaare ko boo gaare ñu gis oto bi boo waxee ñu jënd ko Europe laa jóge maa ngi nii dama indi bagage dama koy jaay dañu ko jënd te pourtant bu ma ko yoroon fii lu ko jaay rek mooy fooyee comme ça moo tax complexe dafa doy waar affaire de complexe moom moo war a denc ñun avant tout man loolu laa gis parce que man li wétoor mooy lépp lu nit bëgg man nga xam lu ëpp ci fi ne ni ci daal soral la ëpp lu ma yëngu rem gës ëpp lu ma yëngu période bi laa am ay commando jarax ni defa ko mais ci wàllu rem gës militaire ci laa gën a concentré wu te liñ ci liggéey dafa mucc ay ba ñëpp soxla ko macha allah waaw mais vraiment boo xoolee yow da ngay a jug sax jege ji état mais da ngay dem ba ci biir vraiment da nga naan dama fay jës yàq sama temps quoi léegi je préfère macha allah sëñ bi kontaan naa lu wér. ci mhm. mhm. a sànni waaw kàddu yi ñu ciy sànni tëjee ko mooy yàlla may ñu Tabaski jàmm. dañ fekk ko année yu bare bare bare waaw seen sud bi dem ba ñëpp bañ dégg mu doon télévision bu mag boo xamante ni vraiment dina egg foo xam ne ñun ñëpp nañ ci mën a gis suñu bopp parce que nga def nii dafa am solo gis nga man damay gis ay débat télévision yoo xam ne sama xol bi dafay jeex parce que mënuñu jël temps yëpp def ko ci débat politique nañ jël maanaam man dama bëgg ñuy def lu mel ni jàmbaaru góor tey ñu dugg ci domaine coordonnateur bi ne domaine boobu chaque année maximum dinañ jël vingt millions wala trente millions ñu teg ko ay cadeau teg teg teg ko ci benn formation maanaam euh, tey ku ci ne nga ñëw recruter bindu ñi def ko mu tudd loo xam ne jàmbaar góor la doon tey ñu ne comme coordonnateur ren day ñett ñi ñoo génn ci jàmbaar gi nga xam ne ay jàmbaar lañ tey nañ leen yóbbu à gën leen toll seen formation bu ñëwee ñu defal leen ay financement balaa déwén di nga gën a améliorer sa liggéey ba jéem a gagné euh, trophée boobu noonu kon yooyu il faut ñu ci góorgóorlu te maire nga xam ne ñu ci commune yi ñun ñu nekk ci commune comme Médina di ci contribuer ñoom loolu waruñu ci woon xaar état ñun depuis suñuy maam ñoo ngi fii kon loolu waroon nañ di ko organiser chaque année bu dee duta sekk a kii te boo xoolee maintenant vraiment coordonné dañ ci contribuer bu baax a baax a baax ci lépp lu mu mën doon mu ay impôt muy lépp mais gisuñ seen bopp bu fekkee yàlla rek la ñu waxal loolu daal la ñu leen dénk. président wu coordonné yi ma ma bëggoon a xam ban message boo amee booy lancé le maire Bamba Fall bi nga xamante ne mooy maire Médina la. waaw monsieur le maire Bamba Fall moom vraiment euh, yàlla dogal na toog nañ toogati toogati mais gis nga euh, Médina bu ñu fi nekkee ñun. suñ fi nekkoon suñu maam mu amoon jëw bu rafet ñu nekk fekk suñu papa mu am jëw bu rafet mooy bu ñu ñëwoon màggi lébu yi ñu fi doon fekk dañu di xaritoo ñoom dalal leen doon seen ay copain ba ci sama papa man copain am yëpp ay lébu lañ kon loolu dafa waroon di continuer man toog na moom monsieur le maire su gisee sama kanam xam na ma bu baax ma proposé ko ne ko pourquoi chaque année nga ne bool bool yi saalum saalum yi ñi ñu jógee ci région yëpp nekk fii damay créer benn tournoi boo xam ne ñëpp ci la ñuy tënku su ko defee ñun ak booy temps yi nga xam ne ñoo dëkk Médina dañu am relation boo xam ne ëllëg man mi wax yow Médina maire gënuma fi dëkk dëkk ba mu dëkk bu fekkee bool la ñu wax ne fa la dëkk man bool laa dëkk fii laa takk soxna ba am fi doom sama taaw pour l'instant mi ngi ci vingt quelques années musul sama jabar musul génn maintenant maa ko takk yóbbu ko jubel kon déjà booy maintenant la yéegi organisation yu mel noonu nga di ko créer dafa am benn collectif bu mu indi suñu biir su ko defee dañuy dem ba mën a takkante suñu biir xamante suñu biir ku romb sa morom nuyu ko yooyu na ko fexe di jéem a def dinañ am solo trop loolu laa la koy conseil quoi mhm. merci beaucoup ziar naa la lu la nga. Matar Gueye. Matar ñu ñëw fekk la champ ma ñëw fekk la ngay ñaw. Euh, ma bëggoon a xam Matar naka ngeen dundee seen toxu si fii. waaw fii ñu ngi nuy ñu ngi leen di nuyu bu baax si teewaay bi ngeen teewaay fii nii di leen sant bu baax a baax tamit toxu bi toxu bi fii yàgg na yàggul quoi ndax boo xool ñu nekk nekkoon Sandaga ñoom ñoo fi ñoom ñoom leen indi fii quoi mais ñun yàlla def na nekkuñu woon foofu. mais ginnaaw bi yëg nañ ni fii am na ay place yu fi nekk mën nañ fi ñëw après ñu ñëw fi commencé suñ liggéey quoi mais pendant un an lañ fi amagoon booy xool. waaw man surtout man quoi. mbaa jafewul woon nag mais pour instant bi moom yombul quoi tamit ndax nit ñi commencé nañ ko miin commencé nañ xam marché bi ak gars yi commencé def léegi mu commencé jàll ñëpp ñëw ñëpp di fi ñëw quoi moo moo tax instant bi yombul nag. waaw instant moom yombul mais ñu ngi si sant bu baax ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi njëkk daal waaw sant nañ si bu baax tamit. Hmm. Matar ma ñëw ma fekk la am plein mouvement wu ñëw. ma bëggoon a xam naka ngeen dundee wàccaayu tabaski bi. waaw wàccaay bi comme ni ñu ko daan dundee rek ndax événement bi yàgg nañ ko def pendant bi ñuy jàng métier ba léegi ñu ngi def ay événement bu si nekk ak ni ngi siy duggee mais ren dafa dafa chaque day tomb yoo xam ni. dinañ dinañ si dinañ si dinañ gën a jàngataat euh, kii bi quoi dinañ gën euh, xamaat euh, événement bi te mais ren def ci raw waaw ren def ci raw quoi ndax ak moment yi ñu génn manifestation yi ak yooyu yëpp mais tax nañ jël suñu matukaay yëpp nag ba mat sëkk nag ba népp nu ci war a duggee duggee nañ ko si ba ñu ngi si sant yàlla bu baax instant bi ñu toll nii. kon bu ma la déggee ci ni nga waxee manifestation yi ak euh, crise bi ñuy wax ci jamono jii nii defu leen deful impact si yéen tailleur yi fii. amoon na tamit ndax yombul woon tamit ndax boo xoolee dëkk bi dara doxul woon. ñëpp bu fekkee da nga dëkk fa sori oto bu war la indi wala nga war a génn sa kër sax même pas cinq mille nga ñëw mu jot na jafe woon na. jafe woon na trop mais ñun doonoon ko gérer ak heure dinañ ñëw heure dem heure xëy si heure wàcc heure daal ba li nga xam képp kuñ sekkal liggéey bi daal duñ si am benn jafe-jafe si suñu diggante ñun ak yow waaw loolu yàlla dimbali nañu si quoi. ma bëggoon a xam ndax client yi ñu ngi ñëw comme ñu ngi ñëw bu baax tamit. waaw ñu ngi ñëw bu baax tamit. xalaat ngeen si génn ak ñoom. dinañ si génn su comme ni ñu génne ak ñoom. dinañ si génn bu baax a baax incha allah. ñu bëgg a ah, li ñu ak ñoom noonu leen sekk rek xam nga ndax yàgg di ngeen ñun ak ñoom yàgg nañ crise bi du ñu yàq suñu diggante ñu ak ñoom même su amul crise tamit du yàq suñu bu bu crise bi jàllee ñu ak ñoom ñooy nekk avant crise bi tamit ñu ak ñoom ñoo nekkoon kon tey crise bi du tax ñu do ñu seq suñ suñu client yi yenn yoo xam ne si ëllëg dañ si dañ si am lu ñuy rëcc comme liggéey bi li mu laaj rek moom lañ moom leen di jox daal. Matar ma bëggoon a xam euh, ci yan genre ñaw ngay yëngu. waaw ñun yàlla def na ñu ngi ñaw lépp daal ñu ngi ñëw yëre góor ñu ngi ñëw broderie ñu ngi ñëw simple tamit loolu lépp mi ngi fi waaw yàlla def lépp loolu lépp mi ngi fi daal jéggaane wuñ dara daal c'est parce que suñu métier dañ ko jàng tamit voilà. macha allah kontaan naa lu a euh, a yoo ci a dolli ba tey ñu bàyyi la nga. waaw di bi ngeen teewaay fii ak ak ak ak ñi ngeen ñi jàllalee marché bi loolu def si am sens. ndax yéen tamit ñi ngeen jàpp si marché bi daal pour pour mu gën a pour mu gën a jàll en même temps yi ngeen def tamit yooyu yëpp gis nañ ko ndax yombul ndax place yi bi ngay ñëw romb nga ay place yu bëri xam nga yu jógee fu sori tamit kon bu yàlla defee ba nga ñëw ba fii tamit yow dañ lay sant bu baax di la gërëm si loolu yow tam. macha allah merci beaucoup